ca dëkk séeréer ya amoon na ci benn waxambaane bu am alal lool bu ñuy woowee ngóor ngóor nekku ko am alal lool waaye nag toll ci wut soxna ñu indil ko jigéen yi dëkk bi yépp waaye moom mu ne bëggu ci kenn tax na mu daal di gàddaay génn dëkk bi ngir wut kan la war a takk moom ngóor war na fasam jubale ci àll ba nis tuuti mu la dajeeg benn màgget màgget bi daan na ko yow sama doom ana fan nga jëm man di soxna laay wuti màgget bi daal na ko nga ba ci digg foore bi am na ci benn garabu lëngoom bu am ñetti doom boo ko tojee dina am lum la wax te nga bàyyi ci xel bu baax a baax a baax na mu gën a gaawee ngoon dàq naw fasam jubale ci garabu lëngoom boobee bu mu egsee gis ñetti doom yi mu nekk ci garabu li ngoom gu rafet rafet rafet ngóor nag daal dagg ñett yépp daal toj benn bi jigéen ju rafet rafet daal génn daldi di ne ko jox ma mburu ak poon nguur daal di ko awma mburu awma poon noonee rek jigéen ñi daal di dem nguur daal di tojaat beneen ba jigéen ju gën a rafet daal di génn jox ma mburu ak pon amuma ko nis tuuti rek jigéen ji daal mes daal di dem na mu gën a gaawee nguur war fa sam daw jënd li nga xam ne moo di mburu ak pon ñëwaat fi nga xam ne moo ci garab gi mu day toj la ba ca des jigéen ju rafet rafet génn daal di ne ko jox ma mburu ak pon noonee ngóor daal génne mburu ak poon daal ko koy jox jigéen ji daal di ne ko dama bëgg a des ak yow ngir nga nekk sama borom kër noonee ngóor daal ko koy nangul ñoo di tabax seeni kër jand garab gi nekkoon ci wetu dex gi bu nekk garab gu rëy rëy rëy ngóor ak jabaram sax foofu ab diir bu yàgg ba seen taw bu góor daal juddu nga di am mbégte lool noone ngóor daal di wax jabaram daal di ne ko jot na nag ngir ma dem ci dëkk ba ngir xamal leneen am naa jabar ba am doom ju rafet rafet comme yaayam na des fii nag yow xaar ma maa ngi ñëwaat léegi noonee ngóor daal di war fasam daal di dellu jamono di dox benn bés jabari ngóor ñëw ci dex gi ngir root ndox ak jinne feeñu ko daal di waaru daal di waaru lool daal di ne lii kat mënul nekk maa gis ku ma gën a rafetee nii lii nag faw ma sàkk ci pexe loo mën a def ngir sàkk ci pexe naa ko def noonee rek jabari ngóor di dem jinne ji daal di feeñu daal taxaw ci kanamam daal di ko yow ni nga rafetee nii ndax mën nga maa may ngir ma rëtt la ngir ma létt la ngir nga gën a rafet mu ne ko waaw noonee jinne ji daal di ñëw ci ginnaawam jël benn ping daal di ko koy jam mu daal di nekk benn picc daal di naaw fasaasa rekk lu yéeme daal di xew muy jabari ngóor jinne ji daal di koy soppaliku ba mel ne moom asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki Sénégal rawatina mbokki Touba lu bees tàq Ndiaye international location de voiture climatisée avec chauffeur man daal duma ci wax dara dama leen di bàyyi ngeen jox jokkoo ak moom ci numéro téléphone yii 77 629 02 80 wala ngeen woo ko ci numéro firi bi 76 488 11 88 Ndiaye daal sa oto yaay boroom yow mi ko luyee tamit. sa voiture yaay boroom dem ci jàmm dellusiwaat ci jàmm bu soobee yàlla bonne route à vous. ba ngóor ñi bisee waaru lool ak jàkkamtee gis li nga xam ne moo di soxnaam dana ko yow lan moo la dal sa kanam bi dafa triste lool ba dara xewul sama ginnaaw mu xamal ko ne ko déedéet ñun kat dañooy jigéen ñoo xam ne bu ñu xasee ba am doom suñu yaram wi day diis moo tax suñu suñu kanam yi di soppiku waaye du dara noonee ngóor daal di ànd ak jinne ji mi nga xam ne yaakaar na ne mooy jabaram di dem waaye nag benn picc bu rafet di naaw di leen wër di xool doom ji ànd ceeg cofeel lool ba ñu egsee ci kër ga jinne ji daal di wax ngóor daal ne ko dama bëgg jàppal ma picc mi nga rey ko jox ma donc yi ma def ko sama karaw gi ndax dina ma gën a rafetal noonee ngóor daal di jàpp picc ma ngir bëgg woo kutt daal di dindi ping ba lu yéeme daal di xew mooy jabaram dëggantaan dal di génnaat génn ji daal di tiit fasaasa ngóor ak jabaram daal di ci dëkk ba fas yéene dund mbégte ñoom ñaar ak seen doom abontoir